Filip sar benn wàll ci linjiil di bataaxal bu yàlla may pool mu bind ko waa filip nun pool ak timote jaami kirist yeesu noo leen di bind yéen gay yàlla yu sell yépp ci dëkku filip yi bokk ci kirist yeesu yéen ak seeni njiit ak ñiy toppatoo yëfi mbooloo mi na leen yàlla sunu baay ak borom bi yeesu kirist may yiw ak jàmm yoon wu ma leen di xalaat maa ngi sant yàlla sama boroom te saa su ma leen di ñaanal yeen ñépp duma noppee bég ndax seen ànd ak man ci tas xabaar bu baax bi ca ndoorte la ba tey wóor na ma ne yàlla mi tàmbale jëf ju baax ji ci yéen dina ci sax ba bésu kirist yeesu ñëw te juumuma ci li ma xalaat loolu ci yéen ñépp ndaxte def naa leen ci sama xol ba tax fii ci kaso bi ci taxawal xabaar bu baax bi ak lawal ko yéen ñépp am ngeen wàll ak man ci yiwu yàlla ndaxte yàlla seede ne sama xol seey na ci yéen ñépp ci biir cofeelu kirist yeesu li ma leen di ñaanal nag mooy lii na seen mbëggeel di yokk tey gën a tar jaar ci xam ak xàmmi gu wér na ngeen sax noonu ci yi gën a rafet ngeen am xol bu laab te bañ a am benn sikk ba bésu kirist ñëw ne seen xol meññ njub ba ni gàññ jaar ci kirist yeesu ci ndamul yàlla ak cantam dama bëgg mbokk yi ngeen xam lii li ma dal taxul xabaar bu baax dellu ginnaaw waaye da ko jëmale kanam noonu ñuy wottu buur bi ak ñépp gis nañu bu leer ne turu kirist rekk a tax ñu jàpp ma te it mbokk yu bari takk nañu seeni fit ci li ñu gis samay buum ba tax ñu gën a ñeme ci wax kàddu yàlla ci lu àndul ak genn tiit am na ñuy waare ci turu kirist ci kaw kiñaan ak xëccoo waaye ñi ci des ci kaw cofeel ak xol bu laab ndaxte xam nañu ne yàlla moo ma teg fii ngir ma taxawal xabaar bu baax bi waaye ñële amuñu xol bu laab te seen njariñu bopp rekk a tax ñuy yégle turu kirist di wuta fedd li samay buum ak coono lu ci gën nag xanaa lii rekk turu kirist jolli na ci nii mbaanaa muy ci naafeq muy ci dëgg bég naa ci te dinaa ci bégati ndaxte xam naa ni loolu lépp mu ngi jëm ci sama mucc jaar ci seeni ñaan ak ndimbalu xelum Yeesu Kirist mi ma yàllay yéwénal ndaxte sama xinte ak sama yaakaar mooy ma bañ a rus ci lenn waaye sama yaram feeñal ndamu Kirist ma ànd ci ak kóolute gu mat su may dund mbaa may dee moom laa daan def démb te moom laay def tey ndaxte su ma dundee kirist laay noyyee te su ma deeyee xéewal lay doon ci man su ma yàlla bàyyee ci àddina sas wu am njariñ la ci man am naa xel ñaar te xawma bi ci gën am naa yéene jóge fi fekk kirist te looloo gën fuuf waaye ma des fi ci àddina moo gën ci yéen loolu wóor na ma kon xam naa ne dinaa fi des di leen taxawu yéen ñépp ngir seen ngëm yokku ànd ak mbég noonu dinaa dellusi ci yéen ngir sama taxawaay gën a lawal seen mbég ci Kirist Yeesu waaye dénk naa leen lii na seeni jëf yelloo ak li kirist digle ci xabaar bu baax bi noonu su ma leen seetsee mbaam a dégg seen mbir rekk dinaa xam ni yéen a ngi dëgër ci menn xel bokk benn xalaat ci bëre luy saxal dëggu xabaar bu baax bi te bañ a tiit dara ndax noon yi leen di xëbal màndarga la muy wone ne aji sànku lañu di màndarga yit ne aji mucc ngeen di mucc gu jóge ci yàlla ndaxte yàlla may na leen ngeen gëm kirist rax ca dolli ngeen sonn ndax turam di wéy ci bëre bi ngeen gisoon ci man te dégg léegi sama mbir